doomu ndey fan la nekk bu ñu dajee bunt bi kenn gi ñu naan Aziz Dabala bu mu fa nekkoon buñ koy rey man la ñuy njëkk rey c'est pas vrai parce que booy wër nit ki xam fu nga dem fa ñu dajji bunt bi ngay taxaw nga ne diw na dugg yow duggul rek kon xam nga li nekk ci biir ñu dugg ci biir mu ni kooku mu ni gisul dara mu ni ko xoolal place sangam man Aida maa la wax ne la sa rak sa mag Aziz Dabala sa doomu ndey bu ngeen lay lu ci luy ñuul ci dootu leen xam ci dara dara dara dara dara ci Aziz man maa la ko wax te dara mënu koo dindi te taxaw naa feneen fudul fii ma wax ko foo xam ne damaa jàkkaarloo ko ay nit wax leen ko wa dama jàkkaarloo ko ay nit wax leen ko waaw loolu bàyyi ko xel bu baax a baax please man loolu laa amoon lu may wax la ma waxoon démb ak barki démb aw ma lenn lu ma ciy ragal parce que man bëgguma ma du ma maanaam nga wax nit ki daa baax sax yaa ngi koy jëw mais kon booy wax ba borom taxaw wax ko ni nga ko doon waxee bul ci am lenn loo ciy wàññi waaye bu ci yokk dara ndax nit ku baax noonu ngay mel bu diw taxawee ma wax nangam booy dee bu taxawee wax ko loolu laa amoon lu may wax ci côté Aziz Dabala Nabou Leye man ñeneen ñu jàpp concerné wul ma parce que gis nga ñooñu lu waral ñu rey Aziz Dabala ba àdduna tukki ba leen ko laajee duñ leen ko wax te ayda ñooñu dañ leen a fay ñu utiliser rey sa rey sa rey sa frère pour muy leer ñooñu defuñu si gratuité affaire bi dafa am firgo firgo bi nekkul Sénégal ma koy waxaat fii ñëpp dégg ko. suba la am na ñu nekk Sénégal xam nañ lu waral Aziz Dabala dee ñu dëgg si seen tànk te parce que pare nañ ko pour Nabou Leye bu mu wax. Euh. Nabou Leye nag moom ku bett àdduna bi. bu yóbboo ngeen xam. merci gars yi. waaw. Ayo, harus ko ñu après nga wàññi ay doon xaar soo ko kii mu ne laaj fan yëpp soo ay doon ñu ngi la. waaw soo ko doomu jàmbur di la ñaanal ko fan ak wér. mais Aziz Fane bu baax ci bi muy dugg kadi woon di parce que ñoo bokkoon milieu nga maa leen ci jiitu am léegi bàyyi naa loolu koy sax mooy ñaar man tax ma li tax ma la yéegalaat ci ci wàll donc euh, ma dina ma ko bu yomb yomb di nga gis li la jaaxal di nga tiit mais saa yu xëyee am force yaram bi du du yomb mu sawar mais li li nga li lay jàppale moo lay may pouvoir ngay demee courage ñi ci des dinañ bëgg a wax mais mooy loolu mais la dama lay njëkk a laaj benn question nga nga tontu ma foofu bàmmeelu Aziz kan moo ko tabax euh, boo ma mënee tontu xaw ma ndax yéen a ngi may dégg ubbi sa micro am na ñu naan son est-ce que maman su ko takkoo écouteur wala dara. lu dégg lu dégg lu pardon. léegi Aïda tontu ko léegi. defuma écouteur dama koy laaj ba xam bàmmilu Aziz kan moo ko tabax. ñun ñoo ko doon tabax ak sama ngeer ak sama mag moo dugal. ok dafa am keneen keneen bokkul ak ñun ñooñu. non non sama ngeer rek la. ci biir ci ñu dem pour na wax ji fay lu gën a génnee Nabou lay loolu ci la bokk euh, maam Waalo wax na sànq maam Waalo xam na ci réseau bi duma wax nag bokk na ci mais xam na ci réseau bi parce que proposé nañ ko xaalis ak jàppale ko doomam génn sànq def naa ko demande ci laay fam nanguwuma jël mais dafa dem ba ci biir góor moo ko ci génnee parce que bu ci duggee li ko tax mu ci gé mu bëgg a génnee doomam wala liñ ko ci dig du ko amal njariñ njëkk nañ ko menacé pour rey ko te jigéen moo ko menacé woon góor ñëw seet si ko guddi vers deux heures du matin bi dee bi amee mooy mu njëkkee wax ci la tëjaatee gémmiñam liñ ko digoon dañoo dem ba ci biir teggi seen tànk ci liñ ko waxoon dootuñu ko jox te bu waxee mu xam moo tax mu génn xabtalu tey et ne moom bu yóbboo ñu rey ko mais day wax mais lépp dina leer après Ndeye Gueye moo tax mu rikkile ñi ma lay wax ñépp nag defal attention foofu dama waxoon ndànk yow dégg ambassadeur. ok xam nga ni Mame Wally gis naa ko mu def live naan fii ku fi amul branlon. waaw. yaa may dégg naan naan doom ji la bëgg mu jéem. waaw mu ko jàppale doom ji jéem. waaw. xam nga soo ko mu ngi ko wax. démb la def live te live bi barki démb la. léegi lañ ko def lañ ko diggoon moom lañ deful moo tax mu génn di leen liveal noonu. ok. te nee na doom reyul reyaanul. ah doomam rayul nit. nit may génn dem. ok. ok. dañ ko digoon dañoo dem ba ci biir teg. ko guddi vers deux heures du matin. bi dee bi amee. la ñu njëkkee wax. nañ ko menacé pour rey. ma ah? ne loo wax nit rayul génn dem. dégguma. nga nit rayul génn dem. dafa ni maam waal dim dafa live nii. waaw doomam reyul nit. doomam rey ah, nit rey nit. ba pare génn dem. kon dëkk bi balaa loo am na fi. Mm-hmm. mi mi loolu la yuuxu de di yuuxu. ko dimbali. ak jàppale ko doomam génn. dégg nga soxalu mboq fii. fay génn. mi Qur'an ne ñinan son est ce que maman se ko takko écouteur wala dara ayda tontu ko léegi non defuma écouteur dama koy laaj ba xam bamilu aziz kan moo ko tabax ñun ñoo ko doon tabax ak sama ngeer ak sama mag moo dugal parce que dafa am keneen ku ne bokkul ak ñun ci biir wax ji fay lu gën a génnee Nabou Leye loolu ci la bokk. ngir euh, yàlla maam Wala doole ma ko partagé live bi. la maam Wala du ñëw ci waay. mu ni merloo. non dafa lu bi la dafa lu a dox. nga bëgguma ko ko woo téléphone. dama bëgg mu ñëw si live bi maa ngi yu ndaw yu maam Waalo wax na sànq maam Waalo xam na ci réseau bi duma wax nag bokk na ci mais xam na ci réseau bi parce que proposé nañ ko xaalis ak jàppale ko doomam génn. Mhm. sànq def naa ko demande ci live am nanguwuma jël mais dafa dem ba ci biir góor moo ko ci génnee. parce que bu ci duggee li ko tax mu ci gé mu bëgg a génnee doom wala liñ ko ci dig du ko amal njariñ njëkk nañ ko menacé pour rey ko te jigéen moo ko menacé woon góor ñëw seet si ko guddi vers deux heures du matin bi dee bi amee mooy bi mu njëkkee wax ci la tëjaatee gémmiñam liñ ko digoon dañoo dem ba ci biir teggi seen tànk ci liñ ko waxoon dootuñu ko jox te bu waxee mu xam moo tax mu ah. génn xabtalu tey et moom bu yóbboo ñu rey ko mais day wax mais lépp dina leer après Ndeye Gueye lan moo tax mu rikkile ñi ma lay wax ñépp nag defal attention foofu dama waxoon du mu tudd tool mais dina am ñu ma la cité ménagéru Aziz Dabala foofu ko kooku côté ko ci lay ananas côté ko dama lay wax bu baax nag tey nga diglu li ma lay bu baax lu ma décidé wul woon loolu laa pour man woon na nga côté ko Nabou Leye mooy escalier bi ñuy yéeg yaayu Nabou Leye xam na bu yàgg parce que lekk bi génnee doomam moom moo ko joxe ñu yóbbu ko moom ak beneen artiste bu jeu théâtre du tudd turam parce que deful lu tax defuma lu tax may tudd turam artiste bu jigéen bu jeu théâtre am na doom yàggul dara kooku moo jàppale yaay Nabou Leye ñu yóbbu affaire bi ci lekk gi beneen avocat bi nga xamante ne mooy ndey li gi nga xam ne mu gën a sës ci nouveau desis bi kooku waykat la ñëw na seen kër ba jox leen njëgu télé kooku côté ko côté ñooñu ni ma wax côté leen en attendant pour le moment dina am ku la xaalis li nag ñëwagul wala bu fekkee ñëw na dina ñëw fekkee ñëwul dina ñëw dina am ku la xaalis pour yëkkati leen seen bâtiment bu ko nangu barki Seydina Muhammad barki salaatu alal nabi bis mu ngeen yëkkatee bëti bu leen doxee te bokkoon ci ñoom nday mbilli gi bis bu yëkkatee bâtiment bi ay da baal ma de wax yombul du neex muy yow wala sa yaay bu yoboo moom ñoom ñu xotti leen malaa moom càngaay loolu man man maa ko wax bu la neexee koteel parce que jiimal nañ la ci saayir ak ci baatin yow mii mii munu guñu li ñu bëgg amaguñ ko ñoom dem nañ ba ne yow boo toogee sa fit du dal gisagum nañu mais mënaguñ yaa leen të kon pour ma wax la mu leer nga mi fii ci suuf mais yow bu laal sa yaay bu mu laal parce que ma xamal la la yow xeex bi du benn nit du ñaari nit te lii may wax bind leen ko téere ngeen teg même am ngeen koo xam ne seen ñaari yaay ñoo bokk ndey ak baay fala Aziz doon nekk caaro yi bu ñu mësaan a jógee ko ñoom nabu lay foofu lañ daan dem kooku doon nañ ko jiimal mais sottiwul Aziz biñ ko gënee kàmbal kàmbal ko ba kàmb gi sotti mooy biñ ko waxee na dem jël appartement bi mag Seck mi may dégg keur Aziz bi mu décédé tay Maguette sek Aziz naron noko fa jox utal appartement ci kaw pour mu dekk fu amul na ah, Maguette Sek génn tek kamil wat ci bakkanu domam bi sey est-ce amna wala amul man duma neub samay wax mais mbir mi ay de di nga sonn mais nak foog nga japp rek talal yalla bañu reculer mais pour mu yomb ni ko do am nabu day génn Sénégal loolu moom par A u par B day dem barki yonti yàlla Muhammad day dem du fi toog mais xam nga mbir mi kañ lay réventoire dina dem nag ba ne tekk mbisum Aziz mi jàppal xel ci li ma wax dina dem ba fay ba ñëpp dootuñu ko talati mais day amaat beneen mambaam day génnaat parce que règlement de compte day amaat ci seen biir ñoom reyante bi day mel ne tulleeg màlle man maa wax lii mais nag Aziz du tey lañ ko soxla woon de Aziz lañ ko soxla woon liñ ko bëggoon ci lekk lañ ko dafa échec mënutuñu xaar ñu yàkkamti mais yaay Nabou Leye xam na cent pour cent lan muy mbir mi oto Nabou Leye bi terrain Nabou Leye bi loolu bokk na ci ak kër gi ñu waroon a tabaxal yaayu Nabou Leye Nabou Leye amoon na fi jëkkër nekkul aset alet kooku ko takkoon na leen wax lu mu gis ak lu mu dégg ak lu mu teg bëtam ba tax mu xëy takk ko même pas vingt quatre heures sëy bi dem yoonam man xam naa Nabou Leye très bien bu baax barki Seydina Mohamed ba may xam Nabou Leye doomam un la am un an muy doog a am doom doom ji di am at yaam di jouer théâtre maamam di jaay ci station bu caaro yi ci tëli noonu la doon maamam daan jaay ndékki par suba kon man xam naa li may wax bu baax mais dama la ko tere ak yaay buy sa yaay nag instant yi xel bi nekkul ak moom il n'est pas tranquille rek laa lay baaxee duma sëriñ duma lenn loolu jënd leen ndox ndox ngeen saraxe ko lii di seen waajur bu jigéen ndox rek laa leen wax ngeen jënd ko yéen ci seen waajur bu jigéen yàlla wis ndox mu sedd ci yaramam loolu laa amoon ci lu may wax maa ngi jékkalu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di la ñaanal jàmm di la yokk courage yàlla la Seydina Mohamed taxaw yàlla la yàlla teg loxo parce que moom la doole ñàkk ak donc yàlla la yàlla dooleel suturaal la mais jàppal doom sama xarit sama doom jàppal xeex bi day metti foog mu metti parce que mbir mi dafa bari ay kankuraay ñu ci bokk am na gaynde gu mag gu waaf Sénégal kooku mooy taatu ren bi mhm. gaynde gu mag googu mooy taatu ren bi foofu nag yàlla rek moo leen di mën a suturaal mais du avocat du du ay juge du ay tribunal te yal na leen yàlla dooleel ci barki seexul xaddim yal na leen yàlla taxaw ci barki salaatu alal nabi yal na yàlla teg loxoom ci darajaay yonti yàlla Muhammad bu mu fekkee yàlla rek moo nekk te yàlla rek moo wóor te moom rek moo jël a gëm yal na leen yàlla jàppale ba li ngeen bëgg yàlla dooli leen pouvoir ba ngeen am ko mais xeex bi du metti de du yomb de barki Seydina Muhammad ku la wax day yomb dalay nax parce nit dina dem bay jug du ko talati te boko forcer te nek nitu kesse bo muytul doo ko fekkee wala sa yaram du demee noonu ambassadeur ngi ciy taxaw en cent pour cent boo préparé yoo xam ne sa bakkan mën na ci ñaar tànkul dañ koy quitté parce que Nabou Leye bu waxee Sénégal tànk Nabou Leye bu waxee Sénégal tànk mais yàlla baax na waali du ci leen parce que waali leen li tax ñu ñu ñu caax-caaxe ko parce que waali moo ko doon conseillé bu ñëwee mujj gi waale la doon waxtaanal Nabou Leye ak Aziz avant muy décédé am na nañu problème ba du dootul dugalatu ko ci dalaam mais am nañu lié rek boo xam ne mooy nit ki dinaa la bàyyi mais du tee may masla noonu la doon dundee ak moom à la fin mais dañ leen a woo pour jubóo ci distance ci semaine yi ñu leen di ci lañ def liñ ko def donc nuyu naa leen ziare naa leen euh, loolu laa amoon ci la may wax maa ngi jéggalu ñëpp. Euh, di leen ñaan yàlla defal leen sutura defal ñu ko ci darajaay salaatu ala nabi allez merci beaucoup nekk leen gaay ñoo ko déggandoo ah yaakaar naa dégg lépp ah ambassadeur waaw euh, su ko dañoo waroon a utal kan euh, appartement ci fi Aziz dëkk. Maguette Seck waaw loolu am na. waroon a utal appartement. mais jotu jot jot naa am appartement ba wala jotu koo am. jotu koo am. man sama xalaat sama xalaat bu ñaaw. programme. Ah. sama xalaat man. mais loolu dafa jotul woon a antu jotul woon a dëkk ci kër gi mais raamata dafa ne am na ku nekk ci biir kër Aziz Dabala dafa juumoon ne waali te Aziz la doon bëgg a wax waaw defe naa ni mais raamata amul information que ne moom jotul dugg si dëkk si ca kër ga ci sama xalaat ci sama xalaat waaw kañ moo indi kër gi foofu moo indi ka nekk ci biir kër man kay leer nañ kay c'est yàlla allo say love maaw nuyu naa la sa sa love maaleykum maa ngi euh, ah. ki nga woo dem ba pare garaawul xaaral ah, sa sa love maaleykum salaam waaw leen di nuyu di leen ziar yéen ñu ngi lay delloo ziar bi waaw man nag miin ma nag di woote sëy bi mooy first time woote mm-hmm. waaw ma bëggoon wax rek di wax Aida nag ko mu muñ Aziz li mm-hmm. nga xamante ne moom lay moom dem na ak waale dina leen woon yoon bi bu ñu tiit bu ñu ragal mm-hmm. waaye bu ñuy seet dara ba di ko seet nag Sénégal am na ay fecckat yu bëree bëree bëri bëri waaye dañu am njiit foog naa seet bi sorewul foog loolu rek laa bëggoon wax mm-hmm. pour gis loolu nag olof la nag Sénégal fecckat yi bari nañ ay am na ay noonu am na ñu fa dugal am na ñu fa génn waaye dafa borom kër boo ñëwee bu ko fa génnee dina la fa génnee kon seet bi soriwul loolu rek laa amoon lu may wax ngeen baal ma àq nag maa ngi nuyu ñëpp di wax na ñëpp muñ nag fii ku fi duggal rek sa xol day tooy te àddina amul solo xam nañ ni Aziz demee waaye ku ci nekk xamuloo nooy demee yàlla nañ demee moom ñi def ñi deful yëpp bés dina ñëw dina am fu muy leeree yaayu Aziz nag maa ngi koy wax mu muñ maa ngi jooy fu ma toll ndax ñoom te xawma leen suma leen a gis waaye saay ma jullee maa ngi di ñaanal te fii ku fi dugg rek yal na la yàlla fay yiw yàlla dina leeral yépp incha allah ñëpp maa ngi di jërë jëf allo allo waaw ma ne jërë ngeen jëf maa ngi wàcc léegi jërë ngeen jëf jàppale rek te bu baax dina leer incha allah jërëjëf jërëjëf kàddu yi rafet na moom bismillah na keneen ñëw Allô? Oui, bonjour. Bonjour, asalaamaaleykum maa ngi leen di di leen ziar di leen jox di leen wax leen massa leen coono ci combat bi nga xamante ni ba tey ñi ci di xeex ñëpp ci commentaire ñi nekk ci gaaw ñëpp di am ba ambassadeur ci pour pour pour pour xeex Aziz ak yow Aziz ak waale mu metti ñu ñun ñëpp nag am nañu ci bari sax peut-être xëy na xamuñu waale xamuñu Aziz mais man dafa am lu ma lu ma seetlu daal dafa am fu Betty di waxee fan yi te nit ñi duñ fa nangu déglu parce que Betty démb bi mu waxee ci affaire magu kii bi magu magu magu Aziz bi euh, focus ci moom parce que man démb dama dugg compte am kii TikTok mais man mënuma nangu tamit yow sa sa rakk gaañu yow nga nekk ci sa jël sa compte TikTok ki nga xamante ni moom dañ ko ci wax ñu moo def ki nga xamante ne mooy fruit bi nga xamante ni dañ ne moom dañ ko ciy tudd dem ànd ki nga xamante ni mooy yow waykat bi nga xamante ni moom ngay jël chaque jour di ko teg di ko fecc man affaire ba bi ñuy interroger Aïda xaw ma ñi ngi naan kii na wax papa naa kurus mu ne mënul wax moment boobu muy ne moom mënul wax ci sa panel yow dégg naa dem na ci beneen panel di fa di fa publicité turu waykat boobu di publicité musique yi mu war a def mais xam nga man tamit du ma la gën a bëgg sa bopp man yow yi ki nga bokkal ndey bàyyi naka la mën a dee man mu metti ma ba tax ma bàyyi sama lépp di ko xeexal ci ñu naan dañ ko jàpp mais man am na yenn yoo xam ne dëgg dëggamuma ko parce que parce que kii soo ko dafa ne am na koo xamante ni mi ngi ci biir kër ñam Aziz dafa dafa njëkk a wax waali sax après mu ne Aziz kon foofu tamit bëggoon naa nit ñi taxaw fa ñu jéem a tamit ci moom allo na Cruz ambassadeur kooku tamit foog ñu jéem mm. xool ci gëstu gëstu ko daal bu baax parce tamit ñun ñëpp dañuy xool lan moo tax ñu roy Aziz kon xëy na ñun ñuy seet bu dee dañuy am foofu dut waxuñu nag waxuñu mi ngi ci de dama ci li mu wane rek waxuñu mi ngi ci de billaay waxuma ne mi ngi ci mais Ramata moo ko wax même kii tamit Soko wax na ko dégluwaat leen Soko bu baax mm-hmm. dégluwaat leen Soko bu baax li mu wax mm-hmm. kon moom tamit war ngeen a war war normalement war nañu taxaw ci moom tamit xool boog ba xam moom gëstu paaseem tuuti boog ba xam sama mhm. xalaat la rek parce que comme ñun dëgg dëgg ñun ñëpp lu ñu tax a jóg mooy lan moo tax dee bi lan moo tax mu am amatu rek ba keroog ngay daj doo bàyyi dara. Mhm. takkaluñ takkaluma ko de mais dama ne doo bàyyi dara rek doo bàyyi benn mhm. piste. comme Nabou Leye mi kenn taqalu ko li mu def rek ci ay fee yi mu def ci lañ basé wu mais ñun ba tey waxuñu Nabou Leye moo def ci fee yi mu def ci lañ basé wu ba tax mm-hmm. ñuy ñuy ñu ñu focus ci moom kon ni ñu focusé ci Nabou Leye tamit keneen bu ñu amee ci moom ay doute mun nañu kii gëstu ci moom mun nga ci gis lu positif comme mun nga ci gis lu négatif dañuy xool rek loolu daal laa amoon lu may wax di leen sant na yow ambassadeur maa ngi leen di ñaanal te bu neexee yàlla doo leen ko dajeeg sa ndax yàlla rek a tax ngeen di def. amiin amiin amiin amiin après après jéem a dégluwaat pap kii nu mu tudd waay pap pap pap Ndiaye ah pap Ndiaye. waaw incha allah waa kay waa am leen. après maa fàllilu waaw après nga ça va na ngeen def ambassadeur. bu baax. di ziar ça va a di leen di kontaan ci di def bu baax a baax a baax lay fay alhamdulilah wax dëgg yàlla yëf yi moom ñëpp la métti man dimanche dama jooy ba sonn ndax dama gisee yaay ram sëngëm rek lool lool mboolem kuy yaay te jum te tey jur rek xam nga ne lii métti na dëgg la yàlla na ko yàlla nit nag na ko yàlla leer amiin amiin amiin barke mboolem mboolem ku jullit rek li métti na la Amin, Amin, Amin, Amin. Ok, ami. ma ami, Amin, Amin, Amin. une vidéo réaction sur euh, les propos de Pape Ndiaye journaliste sur la libération de Nabou donc ma bàyyi leen ngeen déglu les propos et on réagira au fur et à mesure de mon li wax ñu dem. effectivement <coughs> yaakaar naa ne dogal bi Sénégal yépp ñoo ko gisandoo. Mhm. donc depuis démb ci jeudi bi ci la dogal gi daanu. Mhm. moo di bàyyi ki nga xamante ni moom mooy euh, Marème Leye alias Nabou Leye. donc euh, démb ci jeudi bi lañ ko libéré à 16h. ci lay jël ay bagages am génn fële nga xamante moom mooy maf muy maison d'arrêt pour femme bu liberté six muy kaso bi nga xamante foofu lañ ko téye woon hmm. euh, di kaso boo xamante ay jigéen rek fay bu nekkul rëbës parce que campénal ak rëbës yi duñ fa tëj jigéen hmm. donc démb ci lañ ko notifié liberté provisoire assortie de contrôle judiciaire donc moom contrôle judiciaire la am hmm. donc loolu contrôle judiciaire nag moom foo ko gis moo di ne yow euh, génn nga war a ñëw ñaari weer ci kaso xam ne wàllu meurtre te double meurtre sax la ñu yóbbu ne mooy Nabou Leye ah. mais ci deux à trois ko est-ce que loolu dafay signifier que amuñ suffisamment mooy l'enquête préliminaire waaw xam nga lu mel ni soo ko gisee euh, faw ñu interroger wu ci ñaari mbir mhm. bi ci jiitu mooy la légalité de cette décision mhm. ñaareel bi tamit mooy naka la ñu war a interpréter bàyyi bi nga xamante ne bàyyi nañ ko ki nga xam ne moom mooy Marème Lay alias Nabou Lay hmm. alors euh, par rapport à la légalité fi ci laa bëggoon ñëw. ndax euh, Seydina Omar. Hmm. coow li bëri na de. waaw absolument. waaw coow li bëri na. libération Nabou Lay kër mu ngi tas ay diggante. Ah waaw ñi tamit bëri nañ ñi seen xel dalul également bëri nañ. Hmm. waaw loolu moom nekk na loo xamante ne parce que am na ñu bëri ñoo xamante ne da leen bett xaaruñ ko woon. xaaruñ ko woon am na ci ñoo xamante ne lu ne def nañ ko. Mm. pour ndaw si bañ a génn ci kaso. <laughs> ñu taxaw foofu pour analyse euh, kii lan mooy yoonam ci ay ci ay euh, sëy yi tasak kër yu yëngoog. Ah, um, <laughs> man kii man man man daf ma jaaxal en fait yow tu es journaliste nga ni investigateur non mais tu parles de loi tu parles de légalité tu éclaires les gens ci les lois wax sur un sur une telle ou une telle affaire li ngay génn ci ci cadre boobu di wax naan am na ay ay ay nit yu taxawoon pour dem sëruntu ji pour que naboulay baña guen a truc de genre lool lool lool plan la en fait man je vois pas l'intérêt sur cette vidéo dans cette vidéo en fait bon on continue donc amna ben pression bu nga xamné ne mi ngi doon ñu ngi ko doon exercer ci nga xamné ñoy ñooy juge wala bo ni jiite affaire pas plus tard que semaine passée rek ma ngi doon alerté newoon na len famille Nabou Leye bu yeboo ngeen jug de gis na ay lubbu yu taxaw waaw am na ay lubbu yu taxaw ci seen pexe bi lépp mooy dëj ko ci kasso bi ñoom lan lañ ciy gagné suñ bëggee mu des ci li nga xam ne mooy prison bi. en tout cas man je me je me suis rendu compte que dafa bëri ay noom. xaw ma nag quest que qui se passe ak lan moo ko waraloon ak lan la nekkee woon ci biti mais xam naa ne daal ku bëri ay noom. am na ci ñoo ne. waaw. salaamaaleykum. ambassadeur national. naka mu. sant alhamdulilah. Tassira naa. léegi moom est-ce que moom tamit journaliste bi ñu ko wow mu laaj ko ndax dafa am lu mu xam parce que moom bu taxawee ne am na ñoo xamante ne ñu ngi si gànnaam di ko jàppale am na ñoo xamante ne ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy fexeel pour mu génn kon moom xam na ci dara. am na lu mu xam kay lan moo tax police moom mënu ko woo tamit laaj ko lan la xam ba tax loolu am. si am na lu xam. mais puis na mu xam tamit parce que bu ñu ko mmh, alerté même pas deux jours même pas une semaine loolu am kon moom il était au courant que ay jeunes ñoo xamante ne ba si jumboori ba si jumboori ba si jumboori am na benn journaliste bu ñu xulool tey si si panelam bi doon na xuloo ngóone après laa ko may ngeen déglu ko kay mais lolo, parce que li mu wax nii dafa dafa moom moom déjà dafa taxal ñu bëri daf ko wax amul sax une semaine justice génnee ko mais lii day day day day mettre en mal nit ak justice parce que day mel ne que justice wala ñenn mm-hmm. avocat bi li mu wax sa avocat xam ko. ci li def leen naan journaliste bari am na xam si nii. yaa ngi ku wax si deewu Aziz Dabala dootuñu la wuyooti. non waruñu waruñu koo rafetlu de. lii ñu wax nii waruñu interview boo xam si nii Jimbori def na ko tey xuloo bu métti loolu xuloo saa kay xaar leen kay. loolu la ñu doon def pour gis na bu ne ci kaso xam nga suñu borom programme hmm. am la am parfois da ngay am sa bind yeen ci nit yalla ne la non non programme boobu du demee noonu sa man sama programme moy daw pause hmm. <laughs> ki ki ki, ki en quoi les ennemis de Naboulaye l'intéressent en quoi wax ne Naboulaye dafa am ay ennemis ça nous intéresse Parce que moi, j'ai l'impression que quand tu fais allusion aux ennemis d'une personne qui a été inculpée dans quelque chose, ben, en personne, il y a quoi défendre. C'est-à-dire que quelque part, il y a un guillemot qui est que Naboulaye est ennemi, ils ont fabriqué, colporté des ragots pour que nous, nous ko genre diaboliser, que la population diabolise ko, ni mom, les mom là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Ce journaliste, il est très intelligent. Il est très intelligent et très fort en communication. déglu leen bu baax encore. ma ne la ñi tiit bëri nañ. Mhm. ñi jaaxle bëri nañ. Mhm. ñi mu bett it bëri nañ. waaw maa ngi wax léegi ne la ba ma alerté semaine passée doon leen wax ne bu pas ay mbokkam jóg parce que nous avons ñoo xam qui seen pexe bu dina dina yàgg ci kaso bi. Mm-hmm. boobu ci li ma toogoon dafa bari woon. Mm-hmm. xamoon naa ne amoon na ñuy lal ay pexe pour def tout pour dëj ko ci kaso bi. Mm-hmm. xamoon naa ne am na ñu nekkoon ci yoon fabriquer ay preuve fabriquer ay preuve monter ay nit pour tuumaal ko. xamoon naa ne aussi amoon na ay nit yoo xamante ne génne nañ alal boobu dem fay ay sëriñ pour ñu dëj na bu ci kaso bi. alors bi lii amee. Hmm, fii ma toog te boo ma ci joxee ndigal ma teg ko en maa ngi ay ojo yoo xamante ne. Mhm. ay jeeg ju ne faaj yu jox xulóog seen i sëriñ. xulóog ak ci faare saagay ndey mel ni tulleeg màlle. waxoo ma woon lii waxoo ma woon lee. ñoom lu ñu jubloon ci sëriñ si pour nabu lay nekk ci prison bi yaa ko foofu man la man kañ maa ngi audio yi ci faare saaga ndey di taxaw naase ay nangam tur danga ma nax kii ak moo tax. amna ci serigne so xamantene ñi ngi leen di wajje a plainte pour escroquerie ak charlatanisme parce que dafa am ay nit yu demoon ci ñom fay leen xaalis pour ñu dëj na bu ci kasso bi te loolu amul tay jii nii bi ñu annoncé démb ak tay biñu ñu annoncé ne que nañ ko et tout cela ñi ngi préparer plainte pour escroquerie ak charlatanisme loolu boo ko ci fan yi di ñew bu mu la bett hmm. motax est-ce que déglu ngeen ki li muy wax grave leen ma baal leen ma man man damay laajte baal leen ma damay laaté dafa taxaw pour pour pour défendre Nabou Leye moom dafa taxaw pour waxe ni Nabou Leye takkewu ci <laughs> dafa taxaw carrément pour wax ni Nabou Leye ay noonam ñoo jug pour tëjlu ko prison pour ñu garder ko ci prison bi Em momentos de solidão e tristeza, uma das coisas que mais pode fazer a diferença é encontrar um lugar de acolhimento e conforto. gardé ko ci prison pour nous, garder ko ci prison bi li mu ci man et vous allez voir au courant de la vidéo que dieux me wax pour atténuer le fait que ni. mu ngi défendre Nabou Leye maanaam pour jéem a xaw a effacer mu bañ a fës trop que ni moom day défendre Nabou Leye ma bàyyi leen ngeen eggale vidéo bi buñ fay egsi waaw moom waaw waaw waaw Marie ambassadeur baal ma gis nga man xam nga lu ma jaaxal ci Ninki Nanka mii waaw Ninki Nanka mii dafa sañ ta bi mu fi njëkkee yéeg wane ne ci Nabou Leye la far mais ba mu njëkkee yéeg ba mu njëkkee yéeg laa ne kii li mu fi wax lépp bis bu jàllee bu nu paree ndax da ko doon nit ñi jàllale na ko jàllale na ko ci nopp nit ñi mhm. nabu lay génn loolu warta doon mbetteel mais kii dafa wane ne deewu Aziz gi dara dara dara ñoru ko ci mhm. ndax du wax sax jaar foofu ndax maawo daguma la de daguma la mhm. mais di daf ñu doon préparé bi muy njëkk ñëw xam ne ne ay bopp la fi fekk xam na ne ay bopp la fi fekk bi mu ñëwee dafa préparé amul woon fitu yéeg la ñëw jox ñu ko déglul am ñëw question bu buñ ko posé mu wax waxu naka sa xanaa. posé naa question boo xam ne xam ne ay ay question pexe tontuwu la du ma tontuwu la. waaw kay ma xam ne nag gis ngeen kii ni ngi nànk man sama yarama ko musul bëgg musu koo ñeme am na benn bi tase nañ ci panel bi ñu ne ma question man leen man du ma posé question parce que man naa naafiq sama rab du ko bëgg ni ngi nànk naafiq la ni ngi nànk dañ koo fay. rien que pour muy jàllale wax ko lu leer nañ ne ko diaboliser jàllaleel. fexeel ba mhm. lépp jàll ci bopp nit ñi pour ñu mën a xam ne bis buñ bàyyee na bu Leye du doon lu bett nit ñi. Mhm. loolu dong la doon dox. di ko wax mhm. fenkat la. naaféq la duulkat la yàqkat la taskatu àdduna la. taskatu àdduna mooy ki nànk boobu man bu ma xamoon turam ci turam lay jaar pour mbir mi eggaat ci moom ku bon a ngi noonu ku yées a ngi noonu ku iñaan a ngi noonu Pape Ndiaye nan ko ko egalé du tëjoon nan ko kaso fena taxoon ñu tëj ko kasso gis ngeen duul kat la nafiq le beuz lay wut li ninki nan ko wax pam jaay duul kat nga hmm. nafiq nga def katu lu bon nga def katu lu ñaaw nga xamone nga ni coow li lay mujjé ndax lu leer lan la wax fay la lu mat ne la gennal wax nga genn nak am fit ñew tok ci panel bi nat ba mu neex la nga waat tok wax fi ay wax yo xamantene ni moy na jaxase carte gi bis bu ki genné ma taxaw di leral xool ko na mu génnaatee taxaw naan ay jeeg. waaye ban jeeg daa mos a dugg ci benn panel. ci ci ma caabi. Ah. dama lay laaj ban jeeg moo war a tiit Nabou Leye ban jeeg a xuloog jëkkëram ndax Nabou Leye ban jeega fi war a dem sëriñ ndax Nabou Leye Nabou Leye ñun taqaluñ ko panel bi taqaluñ ko sosaluñ ko dégg nga sunu justice moo ko wane ne ay empreinte dafa nekk ne téléphone am dafa borne nanu arrêté waaw tegal sa baaraam ma wax la ban jeeg moom moo moo moo moo moom moom la moo am problème ak Nabou Leye naka noonu jeeg jeegam ba moo tiit Nabou Leye xëy na kon kooku la xëy na kon kooku la wala moom Pape Ndiaye moom muy wutal Nabou Leye bës di wax waxu takk mais Nabou Leye kenn takku ko Nabou Leye kenn takkaanu ko Nabou Leye yée la gis nga fii justice setal Nabou Leye Nabou Leye takk na ndax moo ko njëkk a yuuxu ndax ñun kenn koo wax mu ne Nabou Leye ni mel ak Aziz waru koo def nii ñëpp dëkk bépp loolu lañ doon wax ba justice génne ay neuf empreinte am mu ñun lan lan siq ak Nabou Leye ba koy tàqal mhm. lan lan siq ak Nabou Leye koy sosal laay ananas kenn taqalu ko kenn sosalu ko ay mbokkama ko fi indi ñoo fi wax seen turam wax koom dimbali téye say passeport li mu def Aziz nag ay mbokkama yéeg fii leeral ko ne def na ko ay niti nit kon ñun kenn sosalu fi kenn kenn waxalu fi kenn dara nabu Leye génn ak mu toog ci kasa bu sunu yoon newu ci lan moo tax ñu rey Aziz moom la ñuy bu dee biddéew la nan ne biddéewam la ñu soxla woon ñu wax ko waaye nag man dama dama am mbetteel ndax Aziz kam ne woon mooy ndeyam bu dee ànd ak laay ananas bu dee ànd ak laay ananas ngeen xam ne àdduna juutu na dëkk bi nit ñi ñoo lëndëm ba raw 4 heures du matin nit a foo nit a lëndëm nan wax ci loolu ku lëndëm mm-hmm. kooku nga xam ne ñëw na génn ay rongoñu krokodil man kookoo ma bett ma mm-hmm. kookoo déchiré sama xol bi nan mm-hmm. ko wax nan ko wax jeeg bi ne faaj mm-hmm. bi ne faaj tey ñu toog ñu ne dañ leen a yëgal xew kii toog ci bii siis kii toog ci bii siis kii naan sama mag bu yàgg la kii naan sama mag bu bu bu démb la kii naan sama nitu bërki démb la waa kon kay Aziz moom ndekete ay noonam biir ñoo ko wërun mm-hmm. ñi ko wër ñépp dañ koo wër ndomba suq-suq na ba naayin ko déggoo ma de supp ko daal di toog ne di xool ndayam ji ñu ko wër ñépp ndekete ay coy lan muy góor di jigéen muy mag di ndaw. Mm-hmm. ay doomu Aziz. buñ toogee ba toog ci siis ñoom muy laa diva ñu ne danoo jàkkaarloo noonu di taggante di waxante lu baax te Aziz daan jooy am naqar kenn jooylawu ko. ah man nag tey laa saleeru nag wax jot na de wax jot na nag ndax kaa bi dafa dépassé. kaa bi dafa dépassé. kaa dafa juutu. Hmm? dagguma leen de dagguma leen de mais yéen dafa mel nii tey ngeen di doog a xam journaliste sénégalais yi lu ñuy liggéey néew ma bu leen di déggul mais ñooñu liggéeyuñu dara lu fi luy luy lu fi rafet ay nit ñoo xamante nii problème lañu bañ a dégg maanaam sëy bu tas ñu daw fa ak seeni micro problème fu mu am ñu daw fa musuñu liggéey lu baax

Estou a tua pele seca. Ajuda-me a manter hidratada e com um aspecto saudável durante todo o dia com as noções hidratantes faciais de CeraVe. see dinaa ci teg loxo. ci introduction bi ma doon wax ni. ñi tiit bëri nañ. ñi mu bett bëri nañ. également coow li bëri na également xam nga Sénégal moom nga gis ku yàlla nattoo ko suñu la ko yéene. di yéene pour nga yàgg fa di def tout nag pour dëj la fa. loolu moom Sénégal Sénégal nga koy gis gitu, moom. alors donc bu ñu interrogé par rapport à la légalité d'une telle décision parce que ñu bëri jaaxal na leen li tax mu jaaxal leen mooy comment ça fait-il que meurtre boo xamante double meurtre la ñaari nit ñu ñu rey. absolument ci ñaari weer ñu commencé am ñu ci bàyyi. ci ñaari weer ñu may liberté provisoire wala contrôle judiciaire. Mhm. comment ça fait-il que. amagul li nga xam ne nag yeneen ñu bàyyi ci nit bi donc ñu bëri di intéressé wu est bàyyi bi ko bàyyi dëppoo na yoon waaw wala déet mm-hmm. foofu damay tontu loo xamante ne wax naa ko ci ay jotaay yu baree bari di ko répété waat fii amul benn loi Sénégal buy wax ni mm-hmm. tant que audition sur le fond amul mënuñ laa bàyyi may may liberté provisoire wala contrôle judiciaire mm-hmm. amul benn loi Sénégal buy wax ni tant que jugement amul mënuñ laa may liberté provisoire wala contrôle judiciaire amul benn loi Sénégal également buy wax ni bu ñu leen toppee affaire bu meurtre foo ñu téye la ba nga yàgg ci kaso bi ñu soog may liberté provisoire wala contrôle judiciaire donc tey may ñu may liberté provisoire wala contrôle judiciaire amul benn loi Sénégal may ñu may liberté provisoire wala contrôle judiciaire amul benn benn loi Sénégal may may liberté provisoire wala contrôle judiciaire amul benn loi Sénégal may may liberté provisoire wala contrôle judiciaire amul benn loi Sénégal may may liberté provisoire wala contrôle judiciaire amul benn loi Sénégal may may liberté provisoire wala contrôle judiciaire amul benn loi Sénégal may may liberté provisoire wala contrôle judiciaire amul benn loi Sénégal may may liberté provisoire wala contrôle judiciaire amul benn loi Sénégal may may liberté provisoire wala contrôle judiciaire

Mariam Lay ci loolu sax laa bëgg ñëw muy liberté provisoire bi parce que voilà sooy xool li nga xam ne mooy askan bi ñoom dañoo jàpp ne liberté provisoire bi day signifier que Nabou Leye elle est innocente wala enquête bi mën na dem ba Nabou Leye ñu soxlawaat ko delloowaat ko prison. très bien lu am solo lu jar a leeral la mooy naka la ñu war a interpréter liberté provisoire. liberté provisoire wala contrôle judiciaire. Mhm. tekkiwul ne Nabou Leye dafa set ci liñ koy toppee. par rapport ak li nga xamante ne moom moo fa am. ko war comprendre mooy. Mhm.

Gerson Suárez dégg ngeen ko nee na bu Leye liñ ko bàyyi yi veut pas dire que ni dafa setee ci mbir mi et que à tout moment mën nañ ko delloo prison xam nga loolu la wax loolu la wax loolu naka leen ko bu baax parce que dafa am beneen parti buy ñëw boo xamante ni li mu wax fii ak li mu wax foofu noonu du benn noté leen ko. man bàyyi bi ñu ko bàyyi gisuma ci benn problème ku ku ku ku ku gëmul sisi min ci yoro sa pekku da wala amu ay bët jub jubal jubantu mi nga am parce que li am ni la dossier buñ la indilé nga gis ni kat ki amu benn preuve bo am ci mom da koy téla bayyi mu dem yoonam mais li ñu di gis wax man dama ko raf mësta rafetlu dama lay jox exemple l'officier d'état civil Ousmane Diallo bi ñu rayon te ñu ci Morsek ak moo sekk moom lañ ci njëkk a jàpp. Mhm. bi ñu demee ba ci biir ñu am ñeneen ñu bees ñun jàpp mais malgré tout te kooku ñu jàppoon avoué na nee na moom moo ko def. Mhm. xanaa kon Mor Seck waroon nañ ko mën a bàyyi il a été maintenu en détention jusqu'au jugement. Mhm. dañ ko fa téye ci kaso bi ba jugement ba atte ñu koy soog a acquitté. mais lan moo waraloon boo jàppee nit gisoo ay preuve yu koy takkal nga teel koo libéré jox ko non-lieu alors que Mor pour le cas de Mor Seck possible mais dañ ko téye ci kaso bi ba atte jot alors que jàpp nañu ki rey kooku taxaw na avoué maa def. mais malgré tout dañ ko fa téye ba ki jot. donc man motax man dama japp né le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pikine Guédiawaye bi Mbaye Naboulaye. il a infligé une leçon à ses collègues juges d'instruction. parce que dañ doon gis li ñu dañoo yàgg gis dossier bo xamante day ñëw mu am ay éléments yu bëri yu setal nit ki malgré tout on te maintient en prison bu jugement ngay dem ñu soog la acquitté wala ñu relaxé la. Mm-hmm. motax man damaa jàpp ni dossier bu ñu la ko indilee boo gisee ni nit ki dafa innocent tel koy libéré xaar audition ak xaar atte xaar leneen ak leneen moo ci yem dès l'instant que gis na ne amul ay preuve yu sukkandiku yoo xamante ne kii na ci nañ ko teel a libéré mu dem. Euh, kii moom bon salut les amis. wala moom tey dañu ñëw pour def euh, une vidéo dañ dañ koy déglu ni seulement en parabole sur le propos de Pape Ndiaye journaliste sank li ma leen wax naan la leen na c'est-à-dire que lui il disait que ni moo bàyyi leen ngeen liberté provisoire ne veut pas dire que yow danga sekk que à tout moment mën la jàppaat ñu dem loolu la fi wax bon salut les amis il euh, revient encore pour dire que ni genre juste euh, dafa changé et que nit ki boo ko jàppee nga def ba amoo dara loo xamante ne amoo benn preuve ci moom nee na amoo benn preuve ci moom il a dit amoo benn preuve ci moom on bàyyi mu dem propos et on réagira au fur et à mesure de mon li muy lui il veut il veut il veut dire que ne Nabou Nabou Leye amuñu benn preuve bon salut les amis mais pas les liberté provisoire. Donc pourquoi lui, il va aller le propos et on réagira au fur et à mesure de mon bon salut les amis encore introduire dans l'esprit des gens ce que Naboulaye a montré preuve bu introduire non mais attends lui là il il pense que les gens euh, euh, n'ont pas dit c'est faux nous sommes nous avons ah bon salut hein, man juge d'instruction il faut infliger une leçon à ses autres collègues juge d'instruction donc mon loolu mooy li nga xam perception bi donc en résumé dès que dañ ko seetal ci double meurtre Aziz Dabala ak Wali Baldé tekkiwul également que amul une responsabilité hmm. mais dañ ko may bàyyi ndegandiku enquête bi dina continuer yoon bu ko soxlaa dina ko woo bu ñu gisee leneen luñ ci taxaat aussi yoon may na ñu annulé ko pour que mu delluwaat prison donc loolu mooy li nga xamante ne loolu la yoon wax ci ci ci ci wàll googu ñu ñëwaat ci li nga xam ne mooy instruction bi sax parce que instruction bi mën naa ne mi ngi wooy ba léegi peut-être que juge bi mi ngi enquêté à charge et à décharge suñ demee ba bàyyi ki nga xam ne mooy Nabou Leye est-ce que du am ay risque yàq li nga xam ne mooy enquête ki nga xam ne mooy juge bi aussi am na ay risque pour enquête bi ak pour boppam pour moom waaw donc risque bi ci jiitu pour bu dee pour moom moom mooy sécurité boppam. sa sécurité parce que on parle bu ñu fàtte ne mordom moo nekk ci affaire bi dekk am na ñaari bakkan ñu ci fàttu woon hmm. donc na veille personnellement à sa sécurité bu nga ko caaxaanee bu nga ko sàgganee hmm. waaw parce que génnam bi ñi mu neexul bëri nañ hmm. ñi ko ko yéenewul tamit bëri nañ ay noonam yu nekkoon ci bitti également di def tout pour mu bañ a yàggoon ci kaso bi bëri nañ donc bu mu sàgganee sécurité muy bi ci jiitu maintenant risque yi ci mëna am pour enquête bi c'est vrai que ça salutaire quelque part bo gisul preuve boo toog ni nakoy nga libéré mais quelque part aussi amna avantage amna inconvénient inconvénient bi mëna am ci enquête bi moy euh sañu ne mëna ay de trouble à l'ordre public mom lu kenn mënu ko prédire li xam xew mom euh day bay nañ ko demb ak tay mais gis nañ amul ben TOP bo xamanteni amna fi mais li mëna yak ci enquête bi hmm. bokku ah. na ci boudé éventuellement amna yenen coupable yu nek en liberté déggoo mën na am foofu noonu wala ay ñoo xam ne war nañoo ñëw témoin mm-hmm. déggoo mën na am foofu seen diggante Euh, dossier boobu ba muy tàmbali ca njël

ndax lim ci wax de len ko wax onze billahi mina seytaane rajim Pam Ndiaye Pam Ndiaye taalkatub deuk la nafiq la ki moy taalkatu deuk bu mag bi gis ngeen ki bu deuk bi yengo moko yengal mm-hmm. ki moy nafiq bu mag ki oh, moy mooy bi bu maga mag bi nga xam nak da and ak ponkal yi nga xam ñu kumpulo Aziz Dabala ba def ko liñ ko def kii lepp ko leer gis ngeen ki ku ko jëli yobbu mu wax la lu leer nañ onze billahi mina seytaana rajim par fii dañ ma neex quoi wala maa ko wax naafiq la dëgg nga la rambaaj la taskatu àdduna la bu Sénégal takkee ñii ñu ko taal li taxoon ñu jàpp ko ci yëfi Sonko ya tëj ko taalkatu àdduna la da daan taal kii mooy yëngal askan mooy yëngal mooy def euh, révélation si population kii la gis nga kii bu ko waa dig jëlee jëli ko naafiq ci coowal nabu Leye li mm-hmm. mais damay laajte Nabou Leye ban importance la am boo xamante ni bii danoo war a topp kaawam traité ko réglé ko sur le sang ba tax na ñoom Ndella Madior Diouf Ndella Madior Diouf lan la doon def yor ay xale ñu ne mënu koo yor ci lañ ko tëjee lan moo tax réglé wuñ kaa boobu nan waxante dëgg man faralu ma Ndella Madior Diouf ndax xaw ma ko mais dafa am loo xam ne du dëgg du yoon lii ay loxoy ponk la ci ne justice dafa am ñu taxaw seen ginnaaw weñ loo leen seen loxo ñu def li ñu def Aziz nag amul nday wala ndayam lamam dijjul bralon amu ko ki am bralon Souleymane Ndéné Ndiaye ma nga xam ne bàyyi woon na atte bu solaatee mbubam taxaw ngeen war a xam ne Nabou Leye am na ñu nekk ci ginnaawam nan wax li ay ponk la nekk ci ginnaawam ay ponk la ko tëjloo seen géej Sénégal nag Sénégal lii dafa baaxoo cosaan gi dafa yàgg yow baadoola bi buñ la rayalee bu la borom barke rayalee yow baadoola bi yow yaay muñ say rongoñ mooy mooy siim cere xam ne ñoo am barke rongoñu baadoola yi yàgg naa siim cere ñi am barke ah nan waxante dëgg dafa am loo xam ne ci Sénégal dañ koo war a mooy siim cere buur. waaw kay rongoñu baadoola mooy siim cere buur sira dikk nga lii mooy wax ji lii nag yàgg na Sénégal ndax xool nan Aziz fa mu dëkk ginnaaw raay fu xóot fa fu metti fa. ginnaaw raay la dëkk ndeyam dëkk ginnaaw raay ñoom ndabu lay nag lonko ponkal yi ñu jàppale ko lii mu def li tax mu tëj gémmiñam gi waxul wow na waxul tooy na diggoon nañ ko li mu war a def lépp ndax fii soko wax na ko fi nee na kër terrain oto waaye ndamu lay loolu waru ko jaral muy jaay ngorom nag ba def lii Aziz nag nan waxante dëgg nag àdduna doy na waar nag nan leen waxante dëgg alalu àdduna bu la jaralee lii ndaw alal ju tilim Aziz proposé nañ ko ko de moom moo bëggul alal ju tilim parce que nee li muy indil ndeyam day set dem leen ci vidéo yi ki takku ba dëgër ñaq tedd ñu wan la lu bon ne la bii moo gën a gaaw pour am nga ne bëgguma bunt boobu fi ma yàlla jaarale di doxe ngor ah ñu rey ko ci loolu fekk ko ba biir néegam fa muy laqatoo ñu rey ko fa reyaale doomu jaambur waali mi amul ndey amul baay léegi nag Aïda génn ay mbokki ayda génn yaayu Aziz génn di jooy ñu ne waruñoo jooy danoo naa féeq ndax lan dëkk nu almadi dëkk nu yoof dëkk nu ngor ñu nga dëkk ca banlieue ba nan waxante dëgg gis nga Sénégal na fa dëgg di jib bu fa dëgg jibul ñoom aar bii ñoom ñi bokk aar bi ñooy rayante ba set beneen Aziz ji du leen may puquteem po du leen may dara du leen may wan awa bon nu soxor nanu iñaan nanu mm-hmm. nan waxante dëgg su lay man dee na Ndiaye bu solaatee mbubu avocat am ca jamonoy Ablaye Wade ba taxawaat ngeen war a xam ne mbir mi li ko laxas rëy na. nan wax ci lii. ñi Aziz def nday nag ñu génn wane wu ñooñu ñooy naafiq yu mag yi ñoo ñooy kilifa yu mag yi ñoo ñooy ñu bon ñi ñoo ñooy exploité katu aar bi. ma wax laay ananas ñu naan ko Moussa Jibi Ndiaye Baba Jibi Ndiaye Moussa Jibi Ndiaye fu mu toj. téye passeport xare yi jaxase xale yi ñuy xeex. di rayante di jamante di def lu ñaaw mu làkkatu ca gannaaw bokkatu man nag ki ma bett mooy Aziz kim ne woon mooy ndayam tey kim ne moom kim ne moom jël na avocat te jëlul avocat ndekete ndekete ñoom daal yàkkamti woon na Aziz dëddu ban dajaloo def seen coalition bennoo nag kaa leen ñu taxawal ay ay lan festival ana festival fii dara dafay taxaw waaye billaahi lu mu tabaxal dana lu mu taxawal dana màbb Lun taxawal dana mab, lun taxawal dina daanu ñom sen dara dootu taxaw nan forcer sen bop nak ñu xol ñom fi mu nekk nii sàppi nit ñi bu dee guru am yi doomam yi teg fu ñu yéegati fecc dootuñu leen gis lay lay nak mom, liñ fi wax moy sétal ko kon daal taxawul laalewul ñun ñun jiñu kenn fi panel bi yow ambassadeur ngala ma yow jiño kenn say information ngay dajale di léral bop askan wi yow takalo kenn ñu nit ñu genn nak di wax rien que nag di def cri de cœur li nu metti lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw lii ku waxul ñaaw na naafiq nga lii dafa ñaaw lii kun ko defoon sunuy doom dama ni ñoom ñoo ñu toog dajaloo buñ ko defoon seeni doom àddina dégg leen monsieur Jibi Njaay moom ku rayoon doomam tey àdduna dégg ko nan waxante dëgg man dafa am yoo xam ne man bugguma ko muy affaire u naafiq affaire u feek ruutale ay xale ñuy xeex ruutale ay xale ñuy jaxase ci lan aar fecc ku ne war cee am dara ma wax nag woykat yee gën a naa fekk gën a bon gën a yées ñëpp tëj seen i gémmiñ maam wala mi tawwee ko bërki démboo njaay dañ koo menacé de ñoom ñëpp la nag fi mu ne fénqaloo bi dana jóg de bind leen xeex bi tàmbalee gut léegi mu tàmbali bind leen maa ngi bàyyi ba ci kanam wàcce gu ma ne maa ngi fii toog di déglu audio yi di dóor samay baat dagguma ñeneen ñi ñu ma dagguma ñeneen ñi ñu ma fi fekk mais nit ki bu deful dara lal mota munul togu senegal nit ki bu fekente ni loxom setna lal mota ñukoy rawale ya xal rawale Ya la lo xamanteni nii ah, ah amna na loo xamante nii eh, dañ ko ragal wax mais man man man Le man man man paré na pour joxe sama bagan. parce que dossier bi fu mu toll la début bi ken jige wu fi ken de ken akise wu fi ken ken waxul ni nablay mo def wala je ne sais pas ananas mo ray mais nous, seen dossier bi fu mu musul gis ñu dossier boo un dossier de crime tous les deux tous les dossiers de deux avocats n'est pas présenté sur la table de devant le juge le juge kenn musu ko gis léegi lan moo tax bi Sénégal Nous koy rawale lan moo ñu cabax cabaxee noonu dossier bi noonu génnee ko vite fait bàyyi léegi Nabulaay moom moo am ay noon ba ay nit di si fay ay sëriñ pour mu des si kaso bi léegi ku mu rey nag kooku yàllaa ko rey bu fekkente ni yàllaa ko rey de comme sama papa nu mu demee kenn du si wax aw ma jot sa bay toog fii di wax c'est parce que dafa am loo xamante ni du du lu am si suñ réew bi lu ñu naqari ñun. journaliste yooyu liggéeyuñu ñooñu liggéeyuñu fii la ñuy gis fu problème am yaakaar nañ yaakaante yaakamte nañ gis sëy bu tas ñu daw fa ak seeni micro wala ñaari nit yu am problème ñu invité ko ci palaato yow nekkoo naafike nekkoo seetaane bu ko bu ko taal safar ñaari nit yi am ñi am problème yow nga invité nit ki kii loo loo loo xam si diw waxal si diw yow da nga nekk di defar dul taal safar xam nga ni ku bu baax a baax a baax a baax ñaar nit yi am problème boo woowee keneen ki ni waxal côtéem lay defar kee mu ngi toog si këram di ko seetaan si télé Lolo bokk si lu dugal Khalifa rapport si prison bu mu amee problème ak Wally Seck nee naa ne man journaliste yi dama leen yàgg suivre ñii liggéeyuñu avec tout ça là ñu bu ko former loolu suñu booy yi nekk si ñu ginnaaw yàgg yàgg ngeen yàgg fii bu baax a di ma dégg may wax si jeunesse bi man jeunesse bi moo ma ñor nekkuma fii di wut buzz ak suñu yaay yi nekk fii di jooy ak zaaru liggéey yi liggéey bu mel nii police muy gendarmerie muy muy muy muy justice zaaru liggéey bii nii ñu bukk si former suñu booy yi ñëw jërë xalaat mu ngi noonu ndaw yi nekk si ginnaaw war a jàngal yi seen ginnaaw nangeen xam ni lu baax bu na xam ni bu baax a baax en tant que booy yi di gis liggéey bu salte bii nii si réew bi réew bi nii lay continuer du mus a baax du mus a baax te ñun lu salte boobu noonu lañu bëgg a jëlee si réew bi jaay jaayi doole bi nga xamante ni Sonko moom la jooyee si réew bi cousin sa benn frère bu nekk réew ba mooy wax tey musuma am jot sa bay wax ak li jëm looloo mais ñu ngi lay xamal ni après élection bi nanga wax si lii ñu ngi la koy ñaan si yàlla te yàlla tax njaayi doole bi nga bañ fii te jeunesse bi xeex ko ba yéen ngeen gàññe lii nii tey moo nekk di daw Sénégal boo leen boo leen ko mënee jëlee fii ngeen dimbali ñu ko dimbali ñu jëlee ko fii nii. parce que ba tey rôle boobu mooy daw benn groupe bu nekk fële am doole di di jaayi jeunesse bi ñu nga xamante ni ñoom dañu nekk dañu jóg pour seen bopp dimbale seeni waajur ñee jóg fële parce que dañu am moyen am xaalis am doole rey booy si lu ñàkk fayda loo xamante nii kenn xamul lu muy nuloo parce que xam nañ ne bu baax a baax booy bi dafa gëm boppam xam yoon bi. jànk seen ginnaaw ba mu xam yoon bi mënoon na demal boppam ñu ne noo duñu du fi amee en tant lii mu ngi senegaal ak i fen ñiy wax dëgg ñi ne noonoo kenn du fi waxi dëgg jaar si suuf fay leen xaalis ñu dem toog si palaatoo wala ubbi fële di wax si internet bi di leen défendre ñooñu la lañu bëgg ñu nag dañu ne soxlawu ñu loolu kenn nekku fii pour politique kenn nekku fii pour wuti buzz dana metti nag du yomb de xeex bi loolu mu tax ku siy dugg ku ne na nga préparé bu baax a man mu xam gen sama numéro mais tey fu ma togg fii nii ah ku bugg ku ne ma jox la samay coordonnées nga fekk ma si quarante mille bi bu ko defee ñëpp xam ni lu leer la si lu leer lañ ma reyee aw ma lu aw ma lu ma si ragal mais ta mun ta nek munul am ba pare ken du naan nabulay ken du ken du waxtu turam fii nii ñoom bu liggéey bu set dañu xam kon takusi, si loxom laalul mais mënoo leen juger dossier bu dossier bu mel nii ba pare nit ki mun nañ wax ni deux jours ñu ne nekkul si réew bi kan mooy seetal kooku noonu man su ma xamee ni man takkuma ragaluma nu defuma dara awma kenn ku may daw si àdduna bi awma ku ma ragal Sénégal ba tax may daw sama sama kër laay toog ñu mu bokkal groupe si fecce bi mais ñooñu ñu ngi seen kër xawma si kenn mais leer na ma ne ba mu fekkente ni deux personnes la ñu ngi seen kër te duñu mus a daw moom lan moo tax ñu koy rawal lan moo tax du wax li bu jeexul Senegal, na ngeen xamne ne suñuy rakk ay nek ci ci ci ginnaw on a des problèmes sérieux senegal du musa bax ma ngi jégalu bu baax bax nak, li la am lu may wax bul ken ragal pour wax ni tak, da ci tak mhm. bu fekkene ni ngi fii si panel bi di xex bul ken ragal parce que ñu la dara buñ ko tejjul mom di 3 mois ñu rawale ko yow amul lenn lu la ci fekk. parce que saa yu la jappé ba duggal ci si biir ah ah jàppale tëj la pour problème bobu non ñom lolu fuñ ko tek dañ ko wax eh, population bi dañ ko wax nit ñi c'est ça la vérité Lamine baal ma segam ki ray ki ñuy jiiñ ray mom lañ mënta japp mom lañ japp bay ko massa ñi nga xamné la dañuy wax ci dégg fi kuñ fi ah. jàppit kenn mënu la tous kuñ fi japp kenn mënu la ñaar parce que dafa dé ñu commentaire wax fi amul kenn ku fi ragal wax dañuy wax on parle parce que segam kinne moo takk hmm. moom la ñu tëj bàyyi ko massa ñun ñi nga xam ne dañuy wax dong takkewul laale wuñu dëgg la waaw may zo mu ñëw salaamaaleykum salaamaaleykum def yéen maa ngi lay ziar beti maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar bàyyi bu ma tata sira maawo yéen ñëpp maa ngi leen di ziar caabi mina how you maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar man nak dama tay dama ñew di waxtaan lek comme am ñaa ño xamne dama bëggoon bu yalla dogalé ñom comme ñi ngi déglu panel bi chaque jour pour man yalla man dama bëgg man ma nekk ak ñom ci kaw panel bi ñu waxtaan pap ndjay maget sek comme yalla def na ñom yegg nañ ci panel bi ñaar yoon ben yoon ba ñaar yoon kon ñom panel bi min nañ ko ku musul yegg ci panel bi nak ku ci mel ni maam waalo su fekkee ah mosuma ko gis quoi bu fekkee yàlla dogal na mu mën a yéeg ci paneel bi mu ñëw ñu waxtaan su ko mënul nag amul problème mais ñu jotoon na yëg ci panel bi ñoom nee nañ chaque jour ñu ngi déglu panel bi Pape Ndiaye yaa ngi déglu paneel bi chaque jour yéeg nga fi benn yoon ba ñaari yoon du ma du ma dégg te jàpp naa ne yow Pape Ndiaye suñ fekkantee si panel bi buñ waxtaanee sénégalais yu bëri di déglu panel bi Dinen yewu budé dañ doon nalaw budé dañu rerun tamit daneen gindeliko pap Ndiaye man maa ko ñaan man hélas maa ko ñaan ngir yalla bu fekke yalla def na yaa ngi may dégg bo mënee dugg ci panel bi muy tay muy suba sa bo amé temps nga dugg ci panel bi man ak yow buñ waxtané ñu bari daneen gindeliko ta pap Ndiaye man mi di wax wax li ni man ma man buñ waxtane rek di nga xam peut-être kuy wax ak yow mais bëgg na man ak yow ñu waxtaan bëgg na ñu waxtaan trop ci problème Aziz Dabala bi ak Wali wa bëgg na ñu waxtaan buñ waxtane ñu bari nekk ci panel bi di neen gëndeliku ak Maguette Seck buñ waxtane lu bari lu lëndëmoon ci sa bop dina leer ci sa bop waye lu bari lo xamone tamit dina gëna lii man tamit waxoon naa ko fi ñooñu ñëpp nag dama daan yéeg si kaw di tudd seen tur Pam Ndiaye mosuma yéeg si kaw tudd turam mais mosuñu fi fekkante Maguette Seck noonu waaw moom noonu mais Pape Ndiaye bëgg naa yow ak man ñu waxtaan fii si kaw panelu ambassadeur bi comme daa nga fi yéeg di joxe say wax ak say xalaat ak li nga xam ne moom nga xam di joxe say si yu leer yaakaar naa buñ waxtaanee. lu bëri dina leer ci problème mu Aziz Dabala bi lu bari dina leer ci wàllu artistes yi ak fecckat yi lu bari dina leer ci journalistes yi lu bëri dina leer ci promoteur yuy tëgg làmb nekk senegal waaye lu bari tamit dina leer ci nit yi nga xam ne ñu ngi bokk ci gouvernement bu Sénégal Pam Ndiaye bu waxtaanee di nga dina bari lo xamne ne dineen ko leral te dineen waxtan lu bare bare bare pam Ndiaye parce que li nga xam bari na te man xamna la xam nga xamna li nga xam bari na mais Pape Ndiaye wir wir bo gis dana am jaari ndare te ale bo gis am na retour nañ sóoraale lu bare bare man nak ma la koy ñaan liñ wara waxtane duma ko wax sa ginaaw damay bëgg ñun ñaar ñu tok ñu diko wax bu fekkoon muso yek ci panel bi damay yek ne pam Ndiaye xam nga li ak li ak li pam Ndiaye yor nga li ak li ak li pam Ndiaye deg nga diw xam nga li ak li mais comme da nga yek ci panel bi te yow da nga say responsable nga jël di yek si panel bi te nitu media nga da ngay wax at ñep xam nañ la bu fekke yalla mën na def yow nga yegaat ci panel bi ñu waxtaan te yalla rek tax man maa la ko ñaan <laughs> nga ñew yéeg ñu waxtaan pam waaw loolu man man maa la ko ñaan waaw su boobaa moom yaakaar naa panel bi sax su boobaa moom daanaka dañ fi toog rek waaye dañuy xam liñ xam xanaa kay dañuy toog di waxtaan continuer ci li nga xam ne moom lañ xam ba pare ndax xam ne nii moo tax lii am waaw waaye su boobaa dana gën a leer waaw dina gën a gën a gën a leer Pape njaay please man maa ko ñaan man loolu rek laa amul lu may wax fii tey quoi parce que démb dugg moon ci dugg naa ci live bi rek like benn five minutes mais damaa nekkoon ci suuf ma génnaat damaa jàppoon ma génnaat moo tax ñëwaatuma quoi waaw affaire affaire avocat yi ngeen doon tudd tamit bu fekkee da ngeen a parewaat pour beneen avocat ki nga xam ne moo moo nekk moo moo moo taxawaloon Sonko su fekkee da pare pour pour pour pour ñu jot fi avocat boobu noonu. waaw man mun na maa fexe ñu ñu jot si kooku noonu tamit dégg mun nañ am déggante direct ak ak moom wala wala doomam waaw moom direct man mun naa loolu quoi tamit waaw am naa ci benn renseignement daal bu leer quoi buñ ma buñ ma informé quoi loolu laa waxoon tey naa ko wax gars yi mm-hmm. daal moom maanaam Euh, like Nabou Leye moom buñ moom moom buñ ko bàyyee rek lu bari mën naa mën naa bañ a leer ci ci ci problème mu Aziz Dabala moom loolu moom jarul sax ñu koy werante Nabou la Nabou Leye Nabou Leye mooy mooy de <laughs> wallahi la xanjim loolu amul sax man moom wax naa ko wax naa ko wax naa ko fii wax naa ko ayda amul sax man loolu tumu ko nëbbu fami bi quoi dama len di wax li nga xamne mo am pourquoi ñu bay nit ki rek ñu diko sakal ay Purna, pour mi génn Sénégal pourtant ah, pourtant na té nit euh, nga ray nit Sénégal yàgg nañ fa ray nit de mais yow dañ lay tejj bàyyi la nga génn te téréwul ci dëkk bi ngay dox de yàgg nañu wax diw def na diw deful diw def na diw deful ñu ñu té la pourtant buñ la bàyyee yaa ngi ci dëkk bi dé té ken dak pla voyage amna na ñu mëna voyage foofu te biñ leen ñu ci dëkk bi mais tamit ku mom xarmé bayi nga lol boom gi lol kañ la Nabou Leye mii baax na rek wa pikindi bu fekkee dañu bëgg dañu dañu doon wër seen ab sàcc yi seen sàcc moom jàppoon nañ ko wat ko bu fekkee dañ doon wër tamit kuy ray ku Aziz Dabala ak ñi ko lu jàppoon nañ ko wat ko lolou mom man mako wax te dara duma ci fekk nak lu jamu jàmm rabbi waaw loolu man xam naa ko bu baax a baax mais Nabou Leye daal lu jeg njaag mooy njaag gars yi nee nañ doo ci doo ci doo ci tubay caay nga ci waaye yow lii géej nga ci géej waaw géej nga ci amul sax weerante loo fekki yàq kooku lu fek tamit munu ci yow dara loolu la de li loolu lañ fi gis quoi mais cas bi moom nu mu demee nii moom ah Dah dafa dance quoi dafa dance trop. Yeah. mais me me me lu metti dal na fami Aziz Dabala nak. Yalla xam na ko lu metti dal na len quoi parce que ben affaire dafa am quoi Moy nit ki nga xamanteni da nga japp ne moom ah. du du yag yag yag bam yaxal la koku mu yaxal la ba pare aduna bi yeb taxaw ni di wala yaxal nga taxaw baña jaar ci kaddu yi nga xam nit ñi fofu la jaar ñu xey xey bayiko mu romb la won la ginnaw dem yoonam te tu len sey jot loolu lu ko gëna metti waaw ngay dem bay ñaaw njort ci nit ki dem ba ñaaw njort ci liñ ko téye dem ba ay xaritam génn taxawal nit yoo xam ne xamoon nañ ko avant et après ñu taxaw di wax si moom li nga xam ne noonu ko dund mais nañ waxante dëgg tamit fii ñu fekkee wul rayu Aziz Dabala sax biñ koy yëgee ñoom seen yaram am na lum laaj ak seeni rongoñ wàcc wala ñu am luñ tiit wala ñu am leneen luñ raf wala ñu xool leneen wala ñu wala ñu wala ñuy waxee neneen quoi mais pas Nabou Leye nu mu réagir keroog ak nu doon waxee assi Dabala dee na et après. Nabou ban jour nga dem kër ñoom Dabala Nabou sa yaay ban suur la dem kër ñoom Aziz Dabala waa lan moo waral nga xamanteeg nit ki ànd ak moom ba yàlla def ñi rey ko reyen bu ñaaw ngay dem di jaale ji di dem guddi man Sénégal mosuma gis kuy dem jaale ji guddi mosuma koo gis xanaa lenn nga bokkul ak nit fu ngeen dëkk nga xëyee fa nga dëkk bala ngaa yegg si guddi jot nga ñëw fanaan si waaye nga bokk ak fu ngeen dëkk bokk fu ngeen nekk ngay bàyyi ba nit ñi guddi ngay muru dem di jaale ci nañ waxante dëgg wala li ci bët li ci xool day feeñ ci day feeñ ci jëmm de day feeñ ci bët day feeñ ci waxin gis nga sa xool bu amee lu ci nekk sooy dox sa tànk yi ñoo koy njëkk wane boo reyee nit booy dox sa tànk yi ñoo koy njëkk wane loolu loolu loolu loolu sax yéen gis nga ku xam doomu aadama bu xam doomu aadama la wax de boo gisee nit ku def lu mu warul def bu doxee romb la sax danga xam ne kii def na lu warul def boo xamee nit laa wax de bakkan dafa for yàlla fu mu bindee bakkan kenn jotewu fa moo tax boo ko reyee rek day feeñ ci yow faw nga bàyyi trace mais pourtant yéen tamit nañ waxante dëgg yow Nabou Leye yi Nabou Leye Nabou Leye mooy kan Maguette Seck yow yaay kan Mame Maguette Seck pourtant yow Maguette Seck bi nga jooy Nabou Leye ne la Nabou Leye Nabou Leye Nabou Leye na la noppil yow pourtant pourtant loolu noonu rek am na loo xamante ni daf ko wane lu bëree bëri bëri si bopp si boppu sénégali yi leeral lu bëree bëri mais ñun ñoo dul ñun ñoo ñun ñooy bàyyi ba jaan bi dem ñu topp si dis bi di dóor ñun loolu moo nekk suñ problème problème mu Sénégal loolu kese la te nag li nga xamne mom lañ wara wax gaay mu neex ak mu naxari lolu mo am ku bëgg bokku bokal ku ci bëgg wax waxal ku ci bëggutu wax bul wax mais lobby bi reylu assis Dabala mu ngi Sénégal ñi ci bokku fess tel ay artiste ñu bare bare lolu sax nako bare fi ba pap ñew dina gën a leer quoi dina gën a leer waaw ku yor numéro Pape Ndiaye nag Pape Ndiaye moo xam naa mu ngi déglu live bi mais ku yor numéro Pape Ndiaye woo ko ngir yàlla mu ñëw si live bi waxtaan parce que fii këram la gars yi soxla nañ ko fi torop waaw may nuyu gaa yëpp di nuyu ñoom góor yàlla ñoom wootar ñoom salaam waaw ak waa tim taputas ñi nga xam ne dañoo manqué gisuguñ leen ñoom ñëpp maa ngi leen di Salam xamna tan yi da nga japp gisuma la quoi waaw mais so soo fexee rek mën nga def retour nit ñu waxtaan parce que lu gëna am solo mu ngi mu ngi mu ngi fi quoi lo xamne ne war nañ ko mëna tek fi ci panel bi waxtané ko ñun ñëpp ñu jël ñu jëlaat si dara xam nga kenn ko ne bo jëlé li nga xamne mo nekk sa bop boko ko ci si ji rek après keneen mëna ci jëriñu quoi su boba tamit mën nga mën nga mën nga mën nga di préparer sa bop ci lu bare bari ci lu nga xamne mu ngi xew Sénégal Wow. Lola amon lumay wax quoi mais nak tay nak amna ben keur bu feñ de ben keur bo xamne ni nii gaay yi la bok Saint-Louis la feñ. waaw loolu nak ci gaay yi la bok de waaw loolu mom jotna information yi dembu yuler nanyi, nanyi, nanyi, nanyi. waaw parce que amna ño ñoo dem nañ wolo tuñ Dakar wa léegi Saint-Louis lañuy dem di tassé ji fofu non ndar déglu len bu bax li len di wax waaw te ci mafia gaay la bokku de wala loolu yëpp après dinañ ko gëna léral fi inshallah rabbi waaw man nak maa tok di xaar. Pam jai, pam jai, Ndiaye yow moom war nga ñew pam jai mom soxla na la trop trop Pam jai, da nga da nga wara da nga war ñew so ñewé rek lu bare bare bare bare bare manam dina leer ci bop jam ñi quoi ah so ñewé rek ah magge sék yow tamit man soxla na la trop sama sista bu baax bi soxla na la trop ñu waxtaan te rek tax waaw maa ngi lay maa ngi lay maa ngi lay maa ngi la koy ñaan quoi maa maa yëg naa fi bi mooy ñaari yoon si panel bi maa ngi wax ne soxla naa Maguette Seck ñu waxtaan please maa ko ñaan quoi mhm. xam naa ne nag du yomb quoi mais maa la ko ñaan mhm. gars yi jërë ngeen jëf tienen en fin. jo waaw waaw maa ngi fi xanaa kay dama dama dama wax loolu laa doon wax noonu tamit ma ma ne xaaral ma bàyyi la yéen tamit ngeen continuer wax quoi. man man leen moom a jaaxal zo. ba jamono di jamono ba tey ba àdduna di mhm. àdduna ba tey. Mhm. nooy jaale ji di yóbbu ay ay ay ay télé. di jaale mhm. di yóbbu ay tele. xanaa bu beneen yoonee boo fay dellu bu ñuy def taraxu un an yi frigo ngay yóbbu. <laughs> ndimbal loolu waru woon waru woon da am bu yàgg. Hmm. ndimbal loolu. defe naa waroon naa am bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg. ndekete Aziz Dabala yow ki ngay wax ne mooy sa yaay sa yaay ki ngay wax ne mooy sa yaay nga taf ko ci sax xool ndekete moo xaritoog sa sa sa ennemi numéro un nga téye woon sa passeport ba. ngay jooytu sa passeport foo toll chaque jour ngay jooytu sa passeport sama passeport sama passeport baaba jibi njaay xaw ma jibi jibi njaay xaw ma ibra jibi njaay ndekete ki nga def sa yaay moom xam na ki te sa passeport bi xaritam la jéemu ca lenn tey nga dee tey ñu lay indil ay frigo ay ay ay xanaa bu bu un an yi jotee frigo lay indi ma bës foofu seetaan leen xanaa da ngeen tiit mina béti tiituñu de ñoo <laughs> jommi ni béti <laughs> dafa jàpp ambassadeur dégg nga lu ma wax noonu ma criminel yi bon bi ñu ñëwee di rey Aziz Dabala ah léegi criminel boo xam ne xamula dafa ñëw rek ra ray léegi bu rayee criminel ba ray ba pare kan moo ko wan ni diw sa la numéro bii la nan ko woo ñu waxtaan ci loolu xam nga ñun suñu xel nii day toog du dëgg kan moo wax numéro waali léegi kan moo wax waali waaw ki daal di porte déedéet xam nga daane prétendé Aziz xëy na xam nañ waay. dama ne ah boo nee ñuy prétendé rek kon dañuy ja li ñu ñu jàpp jaarul léegi dama ne man day question laay posé dama ne bu fekkente ni fi ñëw dafa ñëw fekk foofu Aziz Dabala. yow li nga bëgg a wax moom mooy ki def loolu il n'est pas étranger quoi. maam du du du ko xam. non dama ne xam nga ñi ñëw noonu bokk ci crime bi. Hmm. nee nañ xamuñu Aziz Dabala danoo c'est la première fois ñu ñëw parce que appartement ba mu fa ñëwee yàggu du noonu léegi bi ñu reyee Aziz Dabala ba pare léegi xanaa léegi man damaa bëgg ñu jàppale ma bi ñu reyee Aziz Dabala ba pare ki ki ki xam ci numéro Aziz yi mu yore xaritam yi ni ñu bare ki ci xam numéro waali kan la baa mbay bu ñu dof lu comprendre nga waaw kan moo xam numéro waali kan moo xam ba xam waali foofu lay fanaan aussi loolu question la man de affaire bi question la man daal man lu ma bëgg bi ñu royee Aziz la ba pare yaa ngi dégg kan moo xam numéro waali lépp moom naa la ko wax ñee dañu dañ toogoon rek defa ni njortu ni dinañu jàppane pour ñu jéem a xam euh, ki ray Aziz Dabala léegi nag comme toog rek ndekete du ko réglé du dëkk mhm. ñun tamit dinañ jóg dem fa ñooñu di dem ca yoon di fa lijjanti mhm. ñu tamit ñu lijjanti te da nga gis ne ki génn ñi ay lijjantee ko génnee billahi lazi laa ilaaha huwa ku fa jógee dañ la lijjanti mais yow sa bopp rek ku nekk ci biir nu muy lijjantee boppam ah kon gars yi dañ fay nekk ci téléphone yi baaba ku ne ci biir lijjanti moo la génne nañ waxante dëgg li fi nekk du mhm. dëgg man tey demoon naa foofu. ci conférence de presse bi. waaw parce que ak sama xarit la mu leer léegi na leer nañ sama xarit la du dëgg mais man léegi lu ma gën a jaaxal man léegi pour ma avancer affaire yi fii pour ma avancer affaire yi bi ñu reyee Aziz Dabala ba pare léegi question la dama bëgg ku ci mën a répondre nga jàppale ma ngir yàlla ak yonent bi léegi dañ kaa rey ba pare nga rey yi ba pare léegi Darman ko xaritam la Ngone sama xarit la. Euh, naka Munaas Balde sama xarit la Bamba Junior sama xarit léegi nan nga ci xàmmee numéro Bamba Junior ba moo ko rey ku la wool Bamba pourquoi woowoo Darman nga woo Bamba kan moo la wax merci Jimbori bi lay fanaan ku wax waali ci appartement bi lay fanaan daal wax yooyu yëpp waxu internet bi ci boole. ba tey non bu ñu mënee wax internet waxal sa wax rek. waaw wax internet. sa wax waxu internet. waaw maa ngi koy wax. parce que ba tey déggoo police bu génn. sa wax waxu internet la. mu leer nañ laa leen. wax waxu police. sa wax waxu internet la. da koy ba mu leer nañ waxoo fi tus waxu internet ngay wax li ngay wax ni yëpp moom ngay dégg ma dégg ko keneen ak keneen di ko dégg je m'en fous. ok. Ngoné a ñeme yàlla. yow dama la laaj lan mooy sa problème. lan mooy sa problème yow. non man ñàkkee sa ba ma ko ah jaayee boo waxee sa heure it nga wax loo xam ne war a koo wax waxal tontu la ñu nekk ci biti téléspectateur yi du ma la tontu ñi ci plateau bi laay tontu. alors lépp li ñuy dégg fii ñuy wax yëpp ay son téléphone borné nanga ma nanga bi pour internet. ba tey euh, jublu damay wax dara. léegi mus nga gis kii wax waxam rek mën nga ñëw. dindi si dara. non bu la neexee ñun ñooy débat bu la neexee. bu la dama la bëgg non soo waxee loo xam ne soo waxee loo xam ne loolu laa ko mais jiw bi jiw bi non non respect moom. respect moom bi dañuy débat. waaw waaw débat la mais dama lay wax benn affaire mm-hmm. dama lay wax benn affaire mm-hmm. fii képp ku fi toog da nga yor say source toog. Mm-hmm. n'est-ce pas man li ma foog boobu. da am am say su ñëw toog. am na wala am. man dem naa foofu. am na lu ñu waxtaan. famille bi am na lu ñu waxtaan ak man. ndax fekkee woo ko bu man du ma la weddi jamais musuma la ma ne waxoo bi non mais Jimbori waxul loolu man wax ñu ma man. mais Jimbori. ma de. mais dama bi si table bi boo ko defee loo xam ne dama lay wax d'accord su ma mën a defee kooku mu daan ko kooku jeex soo dee loo xam ne mais day jeex mais bu fekkee ne mu tare bu fekkee ne ngoone ici repose ngoone bu ko bëgg ma répété ko mille fois ici repose yaa ko fekkee li nga dégg moom laa di kii dégg ko kenn waaw ngoone wuy ma ngoone wuy ma loolu day yokk de day yokk de daal bàyyi rek wansoo wax dama dindi ko bu baax ma. lu ma leen ku ma neex bu ma waxee. non beneen ne bi nga bëgg yow loo naa la wax ni bon ak yow buñ ko seet. duñ ko sekk bay siir bu baax. jeex na li ngay wax noonu jeex na de. waaw siir bu baax la nga jeex na de. mais Jimbori. Jimbori. Jimbori. salaamaaleykum. déedéet ngoone bàyyi loolu bàyyi loolu. s'il vous plaît s'il vous plaît loolu du débat bi dañuy nekk. Jimbori boo fi waxee ma d'accordul ci débat bi man la waaw ambassadeur posal fii ngoone xam nga ngoone kañ la changé vesam ba ba ba ba nabu lay génnee prison ngoone moo moo njëkk doon wax ci asi ci affaire bi daa dem ba tey mu changé vest bi gisoon ni muy xultoo Jimbori dafa changé ngoone bërki dem ba muy xultu bii nii interview bii nga teg si la changé veste sam ngone mi dafa changé veste dafa changé ngone mi seytaane la kon bu génne la commencé changé moom laa wax ni xaal leen kay ngeen déglu rek kay ngeen déglu bu baax kay mais jarul xam nga ni yàgg nga koo def may noppi pardon c'est bon saalum la yow voyante bi am voyante bi la mais s'il vous plaît man man laa ni nga jël suñu taa rek di suñu taa bàyyi rek ci sa jàmmiñ la jarul xam nga ni yàgg nga koo def may noppi pardon c'est bon déggoo ma yàgg li sa lii da nga cee yàgg dimbali mais mais s'il vous plaît man. seen lii yow da nga ci yaatu. mais jëmbale ñuy dugg ci xuloo nag. Ah, dañuy débat ah. tu as des arguments tu as mais. non non man lu may wax. Ah, mais man dama ne Aziz Dabala. Hmm. biñ ko ba pare. kan moo joxe numéro Wally pour pour pour ñooñu xàmmee ni ak xaritam ni ñu bëree ñu ñu woo kese. mais am nga droit boo jëlee daat ni lii la laa la mais nit ki boo ko nee li nga wax amul danga koy provoqué argumenté woo quoi. mais c'est pas la première fois ngay nga nekk ci plateau la rek ci boor yi après. non ko nekk dama bëgg ku ma ko delloo ñëw bi ay jigéen lu dëgg. te dañuy débat. waaw loolu laay wax quoi wax di tëgg garaaw monsieur fii dañ koy topp de la. yow mii nga ne ma ngoone dama. soo waxee waxu waxu internet wax joo xam nga dégg ay nabu nabulee ci dossier bi ku ci nekk loo ci sa loxo nga ne leen na nañ ñu demee di simple ne bonjour làmbaatu niiraat. di ngay dégg ay ku message kii yëpp ka ko woo loolu ko naan ay di woo woo kële di woo kële kii source buy leer ay leneen ay ay ay ay ay ay dèjà yaa ngi dégg. waaw non non respect bi ma la jox. mais mais mais jubóor yi bu ñu jubóor yi bu ñu dugg ci loolu waaye itam. nekk damaa la ok. respect bi ma la jox jox. mii nag da ngeen dama. mii nag da ngeen dama. mii nag quoi yii moom tàmm na. non non. comme ni la boo weetee nii loolu moom du yii du yii lañu non du yii lañu doon def. xam nga ne la mais pas la xalaatoo la rek dimbali ah xalaatoo la man da xëy na laa laay bañ. xalaatam lay joxe ngay joxe sa xalaat. Ah. Ah. ci débat bi daal yaa xamoo li ngay wax. yaa xamoo li ngay wax su ma xamul lu may wax xëy na yow yaa xam. waaw ci mooy dafa am itam. baax na jëmbal jëmbal ama chaque jour man damay bañ wérante ak nii d'accord comprendre la nii nag wérante wah, lañ bëgg bu may wax man bañ naa ko ba kuy wax dama naan par booy wax waxal waaye jabar plateau bi daal tam ci boppam man daal ñoom ñaar ñu bokk talaa plateau bi boo waxee nu ma war a dugg du ko ci sama làmmiñ gi dama ci saa bay si repose non non mbër damay eh, laajte man ki ban goné la ambassadeur. ni ngoone bi wax ni ko ngoone bu kan mooy kooku. ngoone bi nekk Dakar feeling la ngoone moo don wax si affaire bi lu yàgg di si wax lu leer ne damaa gis lii Nabou Leye lii léegi dafa dem ba changé veste nag. Oh ci émission bi léegi nag li Jimbori di wax. Oh arrangé wu ko mu changé veste bi nag. waaw xaaral fa lay ñëw foofu lay ñëw nii. <laughs> yeneen interview bu njëkk ba balaa Nabou Leye di génn. nga ñu déglu ak bi interview noonu ngay. léegi maam Waalo maam Waalo lan la mujjee waxaat moom. nee na léegi Aziz lay jàppale ak waa kër <laughs> parce que liñ ko digoon jox génne doomam. looloo problème bi dafa xaw a feebar si fii malade bi baa xaw <laughs> yomb ci sénégalais yi. ba ma dégloo émission bi bëgguma lu dul dóor ko. ngoone dafa seytaane dafa changé veste bi. non nit du non Sénégal Sénégal daal Sénégal daal mooy loolu. man nekk Sénégalais. man de man de la temps muy ma la taa ngeen di tudd turu ngóone ngóone ngóone peut-être man kaa bañ a xam parce que du may seetaan télé yooyu quoi. waaw kay xam nga lu tax parce que bu boobaa ku ci nekk règlement de compte dermaaf nga ko nar a jàppee amoon naa xamoon naa la pikir soit wax nga ci moo ci nabu lay wala lii wala laa. nee mm-hmm. na carrément di nga xam ne carrément doo bandi te amoo ah. fit. ngay demee. sa liggéey bi dalaa jaral lu nekk fit ngay demee. loolu laa di ngay wax jigéen jigéen li li nga li nga li nga ñëwoon na ci problème ba def interview. ñëwoon na ci problème bi ba ci biir dëj bi la toog wax ne carrément ki ray Aziz du inconnu te moom suuru kirim bi ñoom moo moo ki moo xa nabu la ñoo fanaan ba ba set. mais nag mais nag mais nag maam waalo foofu doguma la ñi ray Aziz Dabala duñu ay inconnu ñëpp xam nañ leen. léegi nag boobu ñun boobu xamul woon boobu kenn feeñagut. ok interview bi moom ba mu koy wax dëgg bees bi. Mhm. mooy bi mu gaañoo ba ca suba sax. la wax loolu. moo njëkk a wax loolu te man fekkewu ma fekkewaalu ma ñoom gëj naa leen a gis samay doom lañ nag mais des fois dama leen a gëj a parce que amuñu jot. bu mhm. ma amatuma jot bu ma toogee di fréquenté te nga ne bi mbir mi amee moom Nabou Leye ñoo fanaan ba ba seet. moo moo ne ma kër tam këram laa ko bàyyi fo kër Nabou Leye naa nga ne bi mbir mi amee après yan dem nga kër Nabou Leye guddi. dañ dem ci guddi gi bañ fa demee ci guddi gi man léegi ak ñoom kii kii waay lu ma dal mhm. maas maas maas mel mhm. ñu ak ñoom guy gi mhm. waaw sur internet ñun ñu ànd ba foofu naw bu lay daan bu benn internet dugg bii kër si si waaw boobu man ci la ñoom maas gaare ci bundu kër gi man léegi dugg ci biir fekk fa mu toog ñoom ñaar ma wax te boobu ba tey waxuma fi dara loo xamante ni dama ci ma seetaanaat di ruus mu di ma àkk si ba sama kër ba di ma menacé moo tax ma ne loolu dinaa ko. damay fa mbaxane doone benn ñu ci solution ndaxte lii kat balaa moo gën a ëpp loxo ndaxte ñoo nekk ci réew moo xamante ne voilà ah, bañ a sekkatuñ ci ah, présentatrice beeg journaliste beeg ak képp ku ciy wax ndax dafa doon lu garaaw waaye li may wax saa su nekk rek man benn wax la képp ku ci laale wala nga takk ci yàlla lu suñu borom nit ci barke gàmmu gi ñu jëm parce que dañuy def doomu jàmbur yi dafa metti ah yooyu problème ñëw na fi ba tàyyi. mais tey problème bi gis ngeen. ampleur bi mu jël waaw. ba pare et puis. <laughs> bu ñuy seet. Mhm. Aziz rey nañ fi ñu ko gën a. dëgg la pour dëgg la. te melul nii. dëgg la bu demee ba mel nii. bu mhm. fekkee borom xalaat la. Mhm. yaa ngi de di ne tekk dal. étudier. justice justice si boppam. est-ce que nga ñun ñun ñun citoyen yi peuple bi.